bon xam nga euh, gis nañ l'affaire de Dof euh, ndey daf mm-hmm. euh, gis nañ mbirum Dof ndey xam nga nit ki mm-hmm. bu tuddee boppam dof dof dof rek kooku ay mbiram leer na mais li bon ci àdduna ñu baal ma ko ci kàddu gi mooy dof goo xam ne day ànd ak reewande dafa am waay ju nekkoon Cees xel bi wérul woon noonu libaas la tuddoon Cité Lamine bi may def primaire Sita Lamine Libaas da doon wax ne moom doful dafa réew waaye ku jëlu yet nga dóor si kawam taxul du régler yàgg koo def di semer terreur si koñ bi il a fallu que këram kër gi mu jaakaarloo ndeysaan waa ji génn na àdduna ak mhm. benn sa euh, sapeur pompier la euh, benn sapeur la waa ju kostoo am yaram mais Libaas pour mu nekk nit foog waa jooju ñëw waa ji da koo jël da ko dóor dóor dóor ba nga xam ne Libaas mhm. bi mu xëyee suba moom mooy woy naan libaas doful dafa réew. maanaam libaas képp koo xam ne jëloo yat rek nga dal si kaw du régler. Mhm. waaye aussi dama naan dof ndey. waaw doful dafa reew waaye ku jëlul yat nga teg ko si kawam rek du régler jëng Mamour. waaw. mënuñoo nekk dans un état de droit malheureusement. loolu laa doon wax léegi nii. Euh, fi ñu waroon yaree dof ndey lañ ko yarul. lu jiig njaag si lu ñuy jund si jafe-jafe si nguuru Macky Sall la amee mënuñoo ñëw ñu ne dañoo nekk si réew moo xam ne le fils de Macky Sall lene dafa nekk en collaboration avec ki nga xam ne moo di def Ndeye mm-hmm. muy seme téeréer fi nga xam ne moo di Grand Yoff dem ba nit yi naan kookee di doomu Macky da koy financé da koy jox koppar ndaxte toggoon nañ ci moment boo xam ne euh, euh, tolloon nañ ci moment boo xam ne askan bi nga xam ne am nañu woon ci xeetu politique bii di Macky Sall di def mhm. euh, ñëpp lañ doon jox des mooy pour ñu seméter ci réew mi et Dof Ndeye bokkoon na ci ñooñu gis nañ ci ay vidéo cousin am ci boppam Dof nday doon ko jam boobu kooku génn wax lu tax ndaxte ah, Dof Ndeye dafa bëggoon cousin am boobu yëkkati ay kàddu ne ne ñii di seme ñii di taal ak ñii di lakk ñooñu Pastef la ñu bokk lan moo tax booba tey euh, ki nga xam ne moo di Dof Ndeye yoon deful woon si liggéeyam li ko waral mooy nekk ñu woon dans un de droit lan moo xewaat mooy euh, Dof Ndeye boo xam ne dem na Ndofeen ndoofaan xaw ma euh, benn concert ah. si video bi li ma dégg mooy c'est la troisième fois mu fay def liñ ko dégg mu wax mooy dañoo toj li nga xam ne moo di oto mooy oto jël fa li nga xam ne moo di or li ñu gis mooy euh, Dof ndey jàpp ne kenn di ko jamate paaka ba kooku wergu yaram dafa tagg témbe ñu gis ko mu daw dem li si doy waar mooy Dof Ndeye si boppam moom mooy demandé nañ ko filmer xam nga lu tax lool. Hmm. Euh, yaakaar naa ne euh, nit dañoo nekk ci état boo xam ne nit warul fayonteeg moroom beneen bi mooy ñu gis un Dof Ndeye boo xam ne yàgg na di yor ay paaka ay jam di vidéo boppam kooku dafa foogoon ne euh, nguur gi fi nekkoon ci nguuru Macky Sall nga xam ne tey jaxaran nga xam ne tey ku fi menacé woon nga bokkoon Pastef wala nga def dara ñoom azura ñu bëreeg yooyu ci leen leen tëjee woon et pourquoi pas Dof Ndeye moo tax dafa amoon ku mu am ndey ak ku mu ji nga fi ñu mhm. toll nii dañoo nekk ci état boo xam ne yaakaar naa ne Dof Ndeye place am du ci du ci ci dossier mu nekk si et que yaakaar naa ne yoonum Sénégal dina jël wala ministre justice wala procureur dina autosaisir si li mu gën a gaaw jàpp ki nga xam ne moo di Dof Ndeye ah, nëbbu ko jant bi mais beneen bi aussi bu jëree ñu accompagner ko ndax nit moom bu demee bu tuddee boppam dof xam nga nit ki dina dof waaye dof gu ànd ak réewande moom moo mënul ànd te mënuñoo nekk si réew moo xam ne sa waay mm-hmm. dañoo xeex ba injustice jóge fii mënuñoo xeex tey jëlee si réew moo xam ne maanaam nit di fayanteel boppam dafiy jóge mënuñoo nekk si réew moo xam ne lañ doon bañ si nguuru Macky Sall bu nekkee di am ba tey yaakaar naa ne tey war a ñoo mën a tëdd ak fu dof ndey mënti nekk dañ ko war a jàpp tëj ko si kaso bi et sincèrement loolu la ñuy xaar ndaxte. Mhm. Euh, kii danger public la nit ku mën a jël paaka au delà si dof ndey euh, ki nga xam ne moo ko doon filmer si boppam moom it dañ ko war a jël traduire que justice xam tax. Mhm. non assistance à une personne en danger nan la nit di jëlee morom nitam di ko jëm paaka au lieu a a euh, moo di xew xam nga nag lu xew mhm. Dof Ndeye dafa yaakaar ne nguur gi fi nekkoon ñi ko doon dooleel ñi nga xam ne tey ñoo ko doon ñoo ko doon accompagner fii li nga xam ne moom la doon def si geste yu ignoble yooyu dafa yaakaar ne ñooñu ñoo fi ne tey nag li ñuy xaar mooy justice Sénégal mu jël ay responsabilités Dof ndey ak fu mu mënti nekk nañ ko jël dugal ko si li nga xam ne moo di mbaar bi ndax te mbaar bi la mérité ndaxte ku jël paaka di ko jëm nit yaakaar naa ne kooku waratul nekk si biti. Daouda Djigal dañuy desani foofu ba tey dañu nekk dans un état de droit il y a des critères yi nga xamante ne moom mooy déterminer que dañu nekk si état de droit. et que je pense que les autorités yi nga xamantene au sein de ce régime si le gouvernement bi ils n'hésiteront pas à prendre les bonnes décisions et je pense que genre acte yi nii bu ñu mbir bi parce que ce n'est pas la première fois si ay weer si ginnaw gisoon nañu yenn genre vidéo yi nga xamantene nak Les mi ngi circuler sénégalais yi ñu bari ñi ngi xaar à ce que euh, suñu autorités yi ñu réagir je pense que si on laisse encore une fois ce genre d'acte là mun indi encore une fois à des scènes yo xamantene ne kenn assister parce que askan wi ak ñenn ñi déjà commencé nañu def ay vidéos pour dénoncer ces actes là et surtout attention. Hum. parce que amna ño xamantene ils n'hésiteront pas. ils n'hésiteront pas encore une fois à faire des choses yo xamantene ne kenn ñaanu ko Mamour fi la la koy waxé mhm. bon xawma lan mais réew mi ñi ko jité jamono gi waaw man mënuma gëm ne tey du ma tëdd ci kaw laal te dégguma ne dof day teg nañ ko loxo qu'importe. waajee ko tooñ ko tooñu man mm-hmm. mënumaa gëm lool si état bi nga xam ne moom la ñu mm-hmm. tàmbalee amagum si état bi nga xam ne ni dañoo xeex ba mu ñëw am xam nga wax ji wax ji xam nga mooy lan waaw ñu bëri Macky Sall da leen nax maanaam tey lii yëpp di xew si réew mi si yenn yi di def mm-hmm. dañ ko doon def si nguuru Macky Sall du mujj fenn malheureusement dañoo foog ne Macky Sall moo fa nekk ba tey moo fi nekk ba tey te xamuñu ne réew mi dafa changé loolu moom jarul yaakaar naa ne euh, li dañ koy wax di ko wax dañuy yëkkati suñu kàddu mais fii laa la koy waxee mënuma tëdd tey. fii wag guddi te dégguma nekki nga xam ne moo di Dof Ndeye arrêté ñu ko bu nekkee ne mu ngi si réew mi di Sénégal mhm. ak fu mu mënti nekk am nañ réew moo xam ne wala ñoo xam ne nii si wàllum yoon am nañ xam-xam ak fu mu mënti ne war nañ ko mën a localiser euh, jébbal ko li nga xam ne moo di yoon ndaxte ku jël paaka moom di jëm nit rawatina keneen di ko filmer te bii mooy énième fois mu koy def kooku place am nekkul si biti place am si kaso bi la foofu la ñuy jaara tamit sur euh, l'actualité ñi ngi ko doon waxtaanee boobu ba tey prison o campagne